waaw Nana ça va. ba jàmm la. man baax. ci jàmm bu baax sax. d'accord am problème. parce que damaa bëggoon ñoo jéggalu si. gannaaw li fi xew si kër gi yëpp. am naa ci part de responsabilité ndax man maa la maa indi sama rakk ci biir kër gi ba li fi xew yépp xew fi waaye dama laa bëgg a xamal ni rek loolu dootu fi amati ndax boo seetloo ni mbenn sax nekk fi dellu na ñibbi na. jëntiwuma sax ndax mbeenam ci kër gi wala nekkul ci kër gi. intéressé wu ma mbeen ci boppam moo ma intéressé wu yëguma sax ne am na extrait de naissance ban mbeen existé na mu ngi ci kaw suuf yaa wax sa nekk fi de man pour man yow kon comprendre man mbeen man du sama combat sama yoon nekkul ci moom. waaw ba tey rek dama la bëggoon xamal ne rek ni li fi jotoon a xew yëpp dootu fi amat kenn mbeen dem na damaa ñëw jéggulu si ñëw ma pour xuloo ñëw ma pour taaj tey santé dama ma xamal la ne mbeen moom li mu def fooru ko def waaye kaawit li mu def fooru ko def ndax moom magum jëmm la waruloon nangu mbenn di ko jël di ko diri ba di ko yóbbu biir néegam ba di ko defloo yenn ba filme am fa waaye nag fexey jigéen xam nga ni jigéen moom rëbb di sooy bu ko defee rek da koo neex mbenn genre jigéen yooyu la ñu rëbb muy sooy ndax dina ko togg ba mu mokk dina ko waaj seetlu ko seetaat ko di doog di koy doog a def genre jigéen yooyu la bu dul woon kaaw keneen ku ko mënoon defit mbaal mi moom day jàpp rek d'accord ma bul ne keneen ku mënoon defit mbaal bi day jàpp am na góor ñu diiñ su nga jigéen ni muy rombee am personnalité ba kenn du ko yab góor tamit noonu la war a bañ a yombee am valeur ba kenn du ko yab jigéen ngay wax defaat ki ne waaye man lan waaye góor waaye kon léegi da ngeen jàppee góor daal moo sa fa benn kay daal wala góor daal da ngeen koo jàppee daal poids bu léger ku ñëw rek këf jël yóbbu am na góor ñu diiñ góor ñu mat góor ñoo xam ne seen jabar kese képp dong benn jigéen mënu leen a récupérer di leen def loolu yu ñàkk fayda surtout di ci tooñ yàlla suñu borom bii bu ne góor ñëpp ki ma yor kay mooy yolam geño ki ma yor mooy ëf sër ki ma yor moo jàpp bëtam yi def ko bëtulooy di ko bul di ko di ko xullee ko bàyyi bu gisee jigéen mel ni xar mu gis ngooñ point barre du ke bu ci bu ci généraliser góor ñëpp. damaa xam pexey jigéen rek loolu rek la teg kaaw li mu nekkee nii du yoon lépp ñoxo baay la ndax moom moo toog di fayantoog magam ndax su kaaw juumee ba def li war a def moom mii rak waroon naa mën a xam ne ni juumee la rek ndax ku sa moom mag da koy for xale da koy for waaye nag fekk nañu fekk sëy ak jëkkër ñoo xam ne ñoom ñaar ñëpp. ay naxa-naxa leen ñoom ñaar ñëpp seen xel mi ndoxo ci ne ndax bu kii def ruuxee fii keneen ko ruux fa ca des ñun ne ci biir kër gi di complonté ba ñun ñuy suñu bopp sax suñu jikko yàquwaale fa parce que ne ma li ma daloon dootuma dalati du ma bàyyi ñoo bàyyi mii di yàq sama digganteeg yow di yàq sama digganteeg keneen dootuma ko nangu ndax dañoo bokk seen ndey ak baay ba pare ñu matadi ñun nag en tant que jigéen en tant que ay soxna war na ñoo mën a xool nan lañ war a mën a def ba ñoom ñii ci lii ñu ne ñu génn ci kaaw ba gisuma ko démb ba tey gisuma ko ci biir kër gi te loolu du yoon yow soxnaam nga këram gi waru waru fee waru fee ñu xëy sa naan ani fa mu faar fanaan ak fan la jaar ak kon nga dem jëli sa jëkkër jee indi ko ci biir kër gi mooy sa sutura suturaal sa bopp suturaal sa borom kër hmm. ah xam nga ne xaawi moom ma sutura kenn ki xaawi suturaam kay mooy ki dem ku ne ku ne ku ne dung ci kanamu xale bu ndaw boo xam ne koo ko sekkoo leen dara nga ne dung ci kanamu ko kookoo xaawi sutura boppam kër gi nag wax nga ko ne nga këram la donc dina ñëw jarul wër du xale bu ndaw di du xale bu tuuti dina ñibbisi ci biir kër gi amul problème ah, ah, baax na man loolu rek laa doon waxtaan ah. gannaaw lépp leer na yàlla baax na ay la yow alo Ahmed allo <clears throat> maam góor maam góor man maa man maa ma maa sol say say yére bi ñu nduróole bi caay bi waaw maa ko sol génne defal nank rek man am naa li ngay wax waaw d'accord d'accord d'accord d'accord après dinaa la expliquer lan mooy waral lu lu ma ñëw fanaan foofu waaw parce que bi ma ñëwee dañ ma wax da nga am kaar ngoon ngay dem moo fanaan moo xëy suba gi nag rek saa si sama yére ñëw affaire la maam góor yooyu affaire la waay wax naa ko Omar affaire la waaw eh waaw d'accord waaw dinaa lay expliquer ay salaam ça va ça waa kii du tonton Ka <laughs> naa dangaa juum nekkul moom ah tonton Ka ah dangaa juum man dinaa la jaawale ah nekkul man de dangaa juum ma eh, nga ma bu baax dama dangaa juum nekkul man de yow fàtte fàttaliku woo keroog ñun ñun ñaar ñoo tase woon ba nga jël sama numéro wala. man mi ma jël sa numéro yow. waaw fan laay jël sa numéro. Ah. ak fan laay fekk sa numéro di ko jël. man aw ma téléphone sax bu baax bu may wuy. Hmm. Ah. kon loolu kaaw nag fàtte xaju fi. waaye léegi looy def fii naaj bi tàng na de. daa de damaa toog fii rek si taar garab bi. Ah. waaw demal ngir yàlla ngir yàlla fi sabilillahi ten yàlla wal ma demal rek yoon bi mu ngi nii demal ngir yàlla rek bu taxaw fi sax ngay indil ma taal plaignant bi nekk ci sama bopp bi dafa doy seke seke seke seke ci sama boppa bi he mhm. jànka ndaw ah, daagul ndànka nga dem waaw tonton kaw kaw dalal dama bëggoon ñu ànd kër ga comme saa ñu waxtaan parce que état bu ma la fekk nii neexuma de man état bi nga ma fekka nii mm. neex na ma de xam nga leen laa soxla ah. nga dem sa kër munu ma dem seen kër hmm? pour wax bi jeex mm-hmm. waaw xam nga man fi toll nii instant bii man silwiisam nit soo ko fekkee mu toog nga xam ne moom silwiise wul si boppam yow da ngay jéem a silwiise si sa bopp yow du dëgg yow demal nga jéem a sa bopp mu nga man silwiise wu ma bàyyi ma may toog sama toogaay ngay dem sa yoon mënuma dem seen kër mënuma bouger mètre mënuma jël sa téléphone mënuma la woo demal say doxal sa dox. xoolal waaw wuyu ma nag. Ah. xoolal ñëwal ñu dem kër ga xam nga rek ma yaa ma gën a xam. ay xeetu baax baax nokkee yëg si garab bi. ay doo ma fa fekk ëpp am wàccal may ma rek may ma rek. may ma rek may yëg si garab di. waa tonton Ka wàccal. wàccu kon ma maa ngi yóbbaale mbaxane bi maa ngi dem. <laughs> taxawal. doo wàcc. lii lu ko fi kon maa ngi dem. waaye nag ma woo maa ngi deglu sa appel. dégg nga maa ngi dem. oh demal. eh. bële ñaar kenn gënu ma nekk doomu xaj bu ma dal rek maa ko teg sama bopp mag yi di def yëfi mag may def yëfi xale aka maa mënoon yëg garab nag ku la nag moo kat cirib ma dem si kaw allo waa sœur sareet baag noonu tegtal naa ko nee naa ko deux voies deux voies yooyu bi yow da ngay génn taxaw noonu si tali bi sa camion yooyu boo fa taxawee du la gis de yeb naa soble bi ba ma nga di dem waaw moom bu départ rek de de boo ko mu la mu ngi si yoon bi kooku amul caaxaan mboora nga ko yóbbu ah daaru faal nga daaru faal waaw foofu baax tey sama waaj waaw waaw bisi laawal si saret bi balaa wàcce soble si feneen soble soosu amul de soble su neex dafa sa suukar soble su sa suukar laa la yor waaw waaw yow demal demal demal xale bi demal demal dinaa ñëw léegi waaw fas bu xonq fas bu te ñaari fas la am mais fas bu xonq bee ko yam taxaw si tali bi rek sóora is. ça va. ba jàmm la. ça va bi jàmm la kay. ah alhamdulilah. maa gis xel bi commencé xel bi métti woon dafa xaw a doy waar. ok. Ah. yaa naan garab. waaw daal. am sa kan. yow. ah man coppite jeexaluma de. capati. maanaam ah, man maa ngi spécial si yow looloo tax ma ne xaaral ma taxaw wax ak yow. lu spécial. Mhm. yow tamit gis nga lu spécial. waaw. waa léegi lu spécial comme lan. loolu moom. waaw ah, waaw pour te dire. du wax fi ndaxte xaju fi li xam nga laa bëgg. waaw ma ñëw ñu kër. ma tegal la taaya. soo bëggee sama defal la njaru sow. ah man ma ne de. la moo tax mënoo dem. bilaa xam mënu maa dem. gaagaay laay livré seen soble yi billaahi mënuma dem. waaw gërëm mën nañu ko nga libéré ko loolu problème. wallaahi mënuma marché laa jógee nii gisal bébé xale bi yaayam dana mën naa ñëw billaahi mënuma ma billaahi waaye may dugalal sa de sama numéro bi de on connaît la de. waa jàpp si rek yow tamit li ma gis yow ni nga bëgg ma ma traversé nii bàyyi la fii ma maa ngi nii woon dem marché bàyyi sama yoon bi yow taxaw fi di wax ak waaye la spécial foo ko si man. da nga bëgg a xam. waa boo ñëwee suñu kër ñu dem. dinaa la ko wax déet man mënu maa def seen si waaye yow yow yow nay rombee nit nii rek nu ko ni dem suñu kër. wala su ma weesoo coppati nag lan nga bëgg ma def man mënu ma si daal sama xel bi métti laa gis sama xel bi di métti. eh waa coppati ni bañ a coppati. Ah, <laughs> man ne mënu de. moo soxna si man moom loolu wóorul. waaye yow yow yow yow man man. wala tamit yow xool nga ma kaw bu sama dama laa ndur ko danger. non dafa warul man boo ma yóbbee sa ko sàcc ma léegi man. wala laa lay sàcc mel ki sàcc xale. ah yow warul sàcc xale yaa ngi fi mën nga maa yóbbu dagg sama bopp daggatu bopp yaa ngi fi. gis nga lii laay waxaat li spécial ma gis si yow mi ngi mi ngi bëgg a génn waaye xool xam nga li ñuy def. waaw léegi ma dugal fi sa numéro dégg nga après bu man dinaa la wooye si la. Hmm, mais d'accord mais guddi rek laa am jot de. voilà bu muy baax bi waaw guddi rek bëccëg moom damay damay livré rek. guddi ah. waaw waaw bëccëg moom. mais ba ma la woy di ma jël. waa bi dina dox bi ma. su ma la nee moo soko soko rek xamal ne ma la dee. moo soko soko. yow de yow yaay moo soko soko. déedéet man tudd ma cas laa moo soko soko laa lay woowee cas moom du ma ko ko moo soko soko. d'accord soko soko danga kon booy laajte duñ la man cas laa tudd. Eh, maa tudd moo soko soko. ah yaa am ma soxna. ah kon naa ne waaw. allah sama ma ko ma jaaka. ok ma soq soq soq soq loolu a tudd soq soq soq ma maa ko soqalaa sax waa waa léegi man kii bu ma yóbboo këram man si sama coobare ba dem këram ah ak sama liggéey bii de ma def foofu mu dagg ma mu dagg sama bopp bu ma maam ñu ma tiim néew bi lan la war a wax loolu léegi man bu ma laajee néew bi bu ma yeewee fee lu ma wax yàlla man ko mais damaa yeew foofu ñu dagg sama bopp ma laa xam si bala maa jël naan ko eh xaaral mu woote gaa yi yëg na kii naa ma Kandji moo soko soko du ma nangu loolu ba léegi daal mi koo mu neex romb nit ni la Kandji fii sécurité manqué ne de ma ah, dem sax fii moom fii moom juguma saa yoo fa xale yi rombee mën ma nee ma spécial daal jaaxal na ma man ma ànd ak Kiné. Kiné ngi kër ga. ah. Kiné mi ngi kër ga. waxal billaay. xay. ah. yow rek la. Kiné mi ngi man kër ga ma bàyyi. waxal waaye nag Kiné nekkul sa ginnaaw. waaw fi nga nekk nag. nekk fi dalal sa fit mi. ah Kiné nag fi la dugal war na ma koo wax. waa kaw ni nga tilimee gis nga ko. loolu la yàlla dina fàq. loolu la yàlla dogal rek. loolu hmm. de war nga koo muutu. borom kër doy ni yow nga fàq sa kër ñaari fan damaa laajte ku ne laaj naa ko moo ma tax a ñëw fii dëgg lan laaj de bàyyi ma rek may toog fii rek ma jënd fii bàmmeel rek ah de fi nga jënd bàmmeel seet fii bàmmeel rek baax na mm. fii moo fi ñëwee taw bi lépp fekk ma fii yàlla baax na waaw ah, man loolu sax du ma cooy damaa bëggoon nga ñëw ñu dem kër ga fan ah, kër ga kër ga moom dem kër ga lu ma dëgg si kër gi lépp loo dégg si kër lu ma dégg si kër gi lépp yow xam nga ne man man am na erreur bu rëy bu ma def waaye erreur bi génne na boo te eh, eh, eh, noo wetee kat yi les effri effria seer yi yëpp yëg nañu ko dégg naa ñëw nañu kër ga keroog. ñoom maam yaay day sabo ñoom ñëpp ñëw nañu kër ñoom yaay sabo mu wut ah, ay alim moo yëpp ñëw nañ kër gi dégg na yow ku la wax loolu ah ngeen toggam bana foofu ki na yore kilaat gi gina def sorte loolu mu def kilo ci biir kër gi loolu de laa dégg dañ ñëw bu fi wax ma ko ma man duma dem kër gi comme man yàqu na boo pare eh, eh, eh, ñoom maam Ndiaye Sabo yow kii yëpp ñoom yëpp wax nañu jot nañu sama affaire Aliou moo jot na ko ñoom saka saka saka yooyu jot nañ yow de gis na li tubaab bi di wax ak journaliste yi foo information foo information lañ la jox kër ga dara xew fa fàtki ne dée ngi nee di dun dundam yëgul ni sax ni yow génn nga kër gi sunu ataaya lañ tegoon man maa waana sob laajte xam ne ne borom kër du géntal këram ma ñëw di la jës te sax lul loolu li nga def yëg nañ ko waaye lépp sama jëkkër la ak mbeer ñoo la doon complot kan ñoo ko bàyyi loolu lu leer yow ñoxo baay moo la complot ak benn filmé la. ah. waaw. yëgoo ko woon. ah daa fayu nag. man nag ah waaw waaw naka jëkk ma xam ne génnu si. waaw léegi kinne moom lu mu wax. dem naa ci kinne waxtaan naa moom yëpp wax tëgg neex yàlla. waaw mere na la waaye pare na ci. yoo xam nga ni kinne xamoo kinne du bay. kinne ma kinne day def kilo. kinne day yëgul ni sax amoon na jëkkër. guddi bu jotee day nokkam. yow boo amee ci moom nokk doo jël. même bu ñu xabaay piégé tamit am nga ci wàll de. Hmm? ah. waaw kinni laay wax moom. nu mu dara ma nga ne dund dundam yëgu la sax damaa bëggoon nga ñëw nànk ñu dem ñibbi ndax fii nga nekk du sutura. bu yàggee ñëpp dinañ nag kaaw lan lay def ci mbedd bi. dama rus sax wala laay demee ci kër gi tax léegi nag lii nag dalay lay jàngal. ni nga am ñoo xabaay nekk du dëgg. te yàlla. ah dina bàyyi góor du gaaw a jooy. non jooyu ma sax. Ah. sama xol mooy jooy rek. àddunaa ngi ni bëggeel nga ah, jàng bind bu tooy waru taas sa xool di waaw mawti moom du rëbb tooy àddunaa ngi ni bëggeel nga jàng si bind bu tooy waru taas sa xool di waaw mawti moom du rëbb tooy àddunaa ngi ni bëggal ma jàmm